Uh, VP says state will unleash uh, possibilities to uh, LDCs. Now, the Vice President of the Gambia said trade is one of the uh, catalyst or um, yeah catalytic issue that will unleash the potential of least developed countries LDCs, across the uh, spectrum. She was speaking on the sidelines of the 8th of Trade Global Review 2019 where she discussed the potential of women in trade. But we also need to take into account the fact that women have been uh, through this trade for a very long time and they have been engaged in most of the issues. Yet the uh, statistics, when you given a uh, glance, it does not seems like their concern have been taken into consideration. Wow, uh, uh, Vice President uh, Toure Euh, moom daal mu ngay wax ci li nga xamante ne mooy ci. yàlla euh, nañ war a mun a def ba wala lenn li nga xamante ne njaay daal war na cee mun a am taxawaay bu am solo. jàppal li nga xamante ne mooy réew ci doxalinam waaye tamit ci euh, dooleel taxawaay bi surtout nag ci fànn yi nga xamante ne jigéen yaa ngi see yendu ci njaayam jënd te wax na ne sax soo seetee jigéen yàgg nañ ci ci jaay te xam nañ ci lu bari waaye nag pour taxaw leen test na lool te loolu war naa mën a am. te xam-xam màcc na ci. wàllum jënd ak njaay yàgg yàgg naa xeexal jigéen. yàgg na leen wàllu traite tam am na ci xam-xam bu yaatu. kon defe naa ne kàddum yooyu am na solo ci naka la nguur gi di taxawoo li nga xam ne mooy wàllu njënd ak njaay muy traite. Mhm. ba soxna yi mun a am li nga xam ne ñoom tamit dinañ ci mun a suturloo tuuti ndax la mu wax li koy dëgëra boo xëyee yeewu suba teel euh, boo demee ci marché yi soxna yi ngay gis ñooy jaay lëjum yàq yu jëm ci yooya. Mhm. boo demee ci naako yi soxna yi nga fay fekk ak yu jëm ci yooyu tey bu ñu leen jàppale ci seen wàllu njëndu ak njaay ba mu gën a yokk koom-koom bi duun loolu am na njort bu rafet ne dina bokk ci luy développe réew ndax tout tànk yu bari tey boo xoolee ñi gën a sonn ci ñoom mooy seen yaay yi kon ñooñu soxna yi bu ñu leen jàppale rek jàppale nañu réew mi te jàppale nañu xale bu baax a baax parce mm. que mun naa wax tamit sax soo ñëwee ay Afrique tamit si taxawaay jigéen yi fii am na solo mm. ah, taxawaay bi macha allah su ko defee loolu mu ngi sa cross the board mun mm. naa wax loolu ah, ñu gën leen rek dooleel leen foog naa ne loolu am solo comme 国外。